Ousmane Ibrahima Dia sëñ bi ñu ngi lay nuyu. jërëjëf hmm, madame ngay secrétaire général bu CORED euh, CORED di conseil pour l'observation des règles d'éthique et de la et de déontologie euh, dans les médias tey ñu wax ci actualité muy ay kàddu yu Gaston Mbengue yëkkati ci benn télévision muy Walf TV ñu gis ne CORED euh, gannaaw nag yeneen ni organe de régulation moom it jóg na daal di amal benn communiqué wax ne sax dina amal yeneen i action est-ce que mën nañu xam lan la ñuy xaar ci CORED ci mbir mi. Hmm, jërëjëf madame euh, Gaston Mbengue bi mu yëkkatee yooyu kàddu ci émission Walf TV dimanche uh-huh. crois que ñëpp ñaawlu nañu kàddu yi ñun ko rek dañoo génne démb benn communiqué pour euh, ñawlu kàddu yooyu et puis wax ni tamit euh, jot nañu saisir sunu tribunal des pairs uh-huh. mooy sunu benn kuréel boo xamante ni mooy mooy saytu mbirum éthique ak déontologie uh-huh. léegi saisir nañu tribunal boobu et on espère que dina génne benn avis euh, suñuy avis nag euh, dina am ay ay sanction ay sanction correct nag am na avertissement am na blâme am na tamit lu ñuy wax retrait de la carte maanaam euh, journaliste lu koy mandargal mooy day am carte buy firnde kii journaliste la mm-hmm. Euh, d'autant plus que Sénégal léegi dañu instituer carte euh, nationale de la presse mm-hmm. bépp journaliste Sénégal def war am carte boobu ku amul carte boobu yow euh, duñ la considérer comme un journaliste donc bu ñu demee nag ba jëlaat carte boobu si yow je crois que sanction bu mag la te mun nañ jàmb Euh, tey dafa am ay intervenant yu bëri yu jëm bu jëlee exemple mbiru Walf bi am na ki nga xam ne mooy présentateur bi am na organe bi tey bu ngeen waxee mbiru carte de presse dafa mel ni ku ci nekk ci sanction euh, wala sax ci euh, action bi nga xam ne correct dina ko dina ko dugal ku ci nekk di nga am lu lay xaar oh, waaw xam nga ci cas bii nii boo seetloo depuis démb ñi réagir ci bëri na Synpics réagir na CNRA réagir na COED réagir na cela dire ku nekk am na benn cër boo ci am hmm. ñun uh, waa COED dañu sey dañu dañu seet uh, côté éthique ak déontologie bi ñu seetee ni effectivement le médias uh, organe de presse bi dafa wuteek dafa war ak war ak éthique ak déontologie hmm. eh mun nañ ko teg ay daan comme journaliste bi tamit bu ñu seetee ni respecté wul euh, li ko war mhm. dinañ ko mun teg ay daan également et justement euh, tey jii euh, bu weesoo li ngeen wax ne di ngeen ko da ngeen di def benn saisine gis nañ ne mbir mi dafa bëri du rek guléet ñu koy gis ci wal fa Walfadjri gis nañ tamit benn homme politique bi nga xam ne ay kàddoom ay journaliste ñoo ko jàllale gis nañ benn journaliste sax bi nga xam ne moom it dafa utiliser support am pour wax ay kàddu yi nga xam ne jàpp nañ ne euh, tegginewul tey lan moo waral euh, ci seen jàngat mbir mi gën a bëri nii. waaw je pense que journaliste yi dañuy woon dañuy gën a taxawaat ci seen liggéey. Hmm. Ah, liggéey journaliste lu ko tëral mooy éthique ak déontologie. te vraiment di jàllale yenn kàddu yi wala di jàllale yenn image yi euh, journaliste de ko war a bañ mhm. ñun dañu war a nekk ay filtre maanaam ay tami ñu bëri dañ ko war a segg avant muy ñu koy jàllaleen ñu bañ a ay saaga ay xaski diineem wala ni mu mel wala fi mu bokk mhm. malheureusement nag dañu comme ni nga wax dañu seetlu ni instant bi ni loolu dafa bari peut-être nag gars yi liñ ci jublu mooy am buzz comme on dit malheureusement nag euh, day fekk buñ ko defee dañoo warok seen euh, éthique ak déontologie et ñun correct on est dañu nekk fii pour saytu loolu fu deful lu dëpp ak déontologie ak éthique dañ est-ce que li tamit firnewul ne ñoom ragaluñu lu leen ciy xaar ndax sanction corée yi tey diisul waaw c' est vrai que sanction correcte moom euh, c' est des sanctions morales maanaam say naataangoo ñoo wax ni yow kat sa liggéey baaxul te je pense que euh, loolu sanction bu sanction bu dix la pourtant de bu boo demee yow ba say naataangoo nee la yow sa liggéey baaxul je crois je crois que waroon nga seetaat sa sa bopp mm-hmm. euh, en dehors du blâme avertissement mm-hmm. ak retrait carte bi Euh, dañ ci dugal ay points c'est-à-dire que ku ku am blâme am avertissement mm-hmm. mën nga dem suñu demee bay distribuer lu ñu wax le fonds d'aide à la presse mm-hmm. yow di nga am dañ lay wàññil ay points et je crois que suñ la wàññilee ay points koppar yi nga yaakaaroon foofu noonu dina dina wàññeeku on espère que loolu dina tax ba nit ñi gën a prêter attention avis yi CORED di génnee ok donc euh, ci fonds d'appui bi nga wax noonu euh, tey jii bu doon organe bi nga nekk wala organe bi nga yor bëri na luñ ko lu ko CORED yóbbu ci tribunal des pairs ay ponkam dina wàññeeku ba xaalisam wàññeeku c'est ça loolu lañ ci jublu peut-être eh, on espère que euh, gars yi bu ñu xalaatee ni seen koppar yi ñu espérer woon am fële dina wàññeeku mhm. je crois que dinañu gën a faratal respecter l'éthique et la déontologie ñu bañ a egg ci yenn situation comme yi ñu dund ak waawal fajre yi ci fan yi Monsieur Dia weeru novembre bi xamle woon nañ ci ne dina am assise de la presse tey ji ndax CORED bokk na euh, ci ay kuréel yu ñu associé ci yooyu les activités les assises de la presse euh, SYNPICS moo ko lancé. Mm-hmm. Mm, rafetlu nañ ko parce que war nañ xool médias yi nu ñuy doxee tu mais booba lay quand même ñun ñoo ngi xaar euh, SYNPICS euh, jege si ñu. wax lii la ñu xaar ci yéen walla ba léegi ah, loolu antuwul bon peut-être que du tardé puisque luñ ko lancé yàggul noonu. ñoo ngi jëm ci ay élections locales yi ñooy jiitu tey jii mu am presse bi nga xam ne dañoo jàpp ne dafa ànd ak nguur gi am beneen presse bu ñu jàpp ne euh, moom euh, anti nguur gi la sénégalais yi ñooy wax parce que boo dégloo émission wax sa xalaat yu bëri euh, da ciy dégg kàddu yooyu le boo tendre micro ci Vox Pop da ciy dégg kàddu yooyu la tey ngay def journaliste yi. mani dañu waruñu dem ba egg foofu je crois que euh, journaliste euh, warul lay wala leneen seen liggéey dafa war au service de de l'information information euh, ñëpp ci war a gis seen bopp non seulement que ba lañ bokk wala ñuy je crois yooyu dañ ko war a waruñ ko nangu. tey jii monsieur Dia fan la place éthique ak déontologie ci journaliste bu bëgg a def politique fan lay féete. journaliste moom buy naan dafay def politique. Mhm. je crois que dafa war a génn rédaction am mu dem defi politique am su defee activité politique am ba pare nag soog a ñëwaat ci mbirum journalisme. Uh-huh. xam nga journalisme yow da nga nekkal pour ñëpp. Uh-huh. or politique dafa am par parloo. Uh-huh. moo tax euh, ñaari mbir yu ànd yu àndul le temps que bi ngay def euh, ik je crois que war nga war nga mun bàyyi sa liggéey journaliste nga dem defi sa politique boo paree nag nga ñëwaat ñun lool mooy suñu gis-gis ci loolu. Mhm. carte de presse yi yaa ngi koy junj sànq CORED am ci benn wàll ci processus biñ koy defaree tey jii euh, dossier yi ngeen di euh, jot nan la fa demee. waaw xam nga carte de presse léegi def am solo ci Sénégal. Hmm. Euh, dañ koy instituer maanaam carte d'identité journaliste mooy sa carte de presse. Mhm. ku amul carte de presse dina am jamono on duñ la considérer comme journaliste mm-hmm. parce que foo dem buñ la laajee carte boobu soo amul doo duggu moo tax mu am solo ñun nag euh, ci joxem carte bi dan dañ ci am wàll ñun ñoo joxe euh, lu ñu naan quitus mm-hmm. boo déggee quitus bi mooy euh, journaliste bi kii kat njort nañu ni remplir na ay critères respect éthique ak déontologie pour mun a def liggéeyam moo tax bu àndee sa dossier ñun dañ ko saytu xool bu ñu gisee ni yow kat euh, amoo benn problème ci mbirum yooyu noonu dinañ la jox sa cutis euh, parfois nag dañuy xool gëstu ñu ni kat kii kat je crois que euh, ay kayit ay ni ko gisee daal des na mm-hmm. moo tax parfois nag euh, ñu faral du ñu joxe quitus bi waaw. kon na am na bu ma la déggee ngay wax ay dossier yi nga xam ne tey téye ngeen ko. maanaam delloo ngeen ko borom. bien sur am na am na am na am na ay gars yoo xamante ni jaar nañu bureau ba pour wut si quitus bu ñu xoolee seen dossier ba pare nangu ñu leen jox quitus parce que on estime que am na lu des lu bari. d'accord et souvent ci lan lay bon souvent ci li muy basé may kii fu muy liggéeyee xamuñu exactement est-ce que kii mi ngi liggéey mi ngi exercer wala journal bi mu wax fu muy euh, yéen kaay fu wax rek liggéey est-ce que mi ngi faral di génn régulièrement mm-hmm. genre yooyu noonu merci beaucoup euh, monsieur Ousmane Ibrahima Dia je vous en prie madame ñu lay jaajëfal bu baax a baax ngay secrétaire général bu CORED